ngi di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi leen di baalu àq di leen baalu àq di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu baal ci barke ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam di jël suma nuyoo ak suma ziyaara ak suma ndokkle teg ko ci loxo suma mbokk yu tedd yi nga xam ne ñoom ñoo njëkk jël kàddu gi di suma turandoo Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Dieng ak suma xarit al oustaz Jabel al imam Jabel Kouaté seen nuyoo ak seen ziyaara ci lay jëlee sama nuyoo ak sama ziyaara tàbbal ko ci biir nga xam ne comme 20 minutes lañ ma wax xam nga waxam nuyoo ci la bokkam dit ah bokk ci waaw xanaa kon su ma nuyoo suñu baay suñu soppe alxaaji Bili Pay yaakaar naa ni nuyu naa aima yi fi nekk yëpp nuyu naa xadara Maam Cheikh Alxaaji Malick yëpp nuyu naa ñëpp fa tabaarakallah ñu nuyu ko ziyaara ko ñaanal ko wér ñaanal ko gudd fan imaam comme li ngay wax ci moom rek moo ci nekk soldat la liggéey na def na sacrifice ci lu ne waaye ni ko góor gi waxee léegi rek li mu doon xeex ñu ngi ñaan yàlla ci tariixa bi yàlla may ko ndaw ñi ñu gën di taxawee mission boobee nga xam ni moom la bëggoon mu taxaw flambeau boobu yàlla bu mu fay dafa am benn bindkat bu wax ni dafa am lu ñu tuddee jiswatu tawxiid muy le flambeau de l'unicité de Dieu nga xam ni mooy gilint bi nga xam ni moom la mag ñi taaloon doon ko leeral diine gi mu ne gilint boobu dafa am lu xew mu ne dafa am ndaw yoo xam ni dañu xaw a sàggan bàyyi ba flambeau boobu fay ñoom ñoom ñu ñëw di cibb ci doom ji di ko jéeri naan ñoom fii lañ taaloon loolee nag yàlla lañ ci yàlla musal

ak ñaan yi mu doon ñaanal sànq man ak professeur Mame Ousmane yàlla na ko yàlla nangu nuyu ko nuyu nañ ñëpp nuyu waa projet yëpp suma ma nuyoo suma mbokk suma xarit suma lépp sama confident di euh, al oustaz Serigne Mouhamadou Moustapha Kébé di doom ci professeur Abdoul Aziz Kébé su ma ko nuyoo nuyu naa projet parce que lu tax ma nuyu ko sama ñëw ci projet ci moom la jaar je pense il y a de cela deux ans ci la ma woo benn jour téléphone ci benn corps wax ma boole ma ak ñoom boobu ba léegi ànd bi di rafet Cheikh Ahmed Tidiane Cherif sama trolo Dieng dalal ñu ñu ànd di liggéey ak ñoom kon su ma leen nuyoo ñoom ñaar nuyu naa projet yëpp ndax ñoom ñëpp man maay ñoom ñoom ñooy man li suñu mbokk pël ba waxoon ba pël amu fi <laughs> bi mu ñëwee Dakar di nekk fi gan xamul nu muy def ñu ne ko léegi comme da ngay wër liggéey di laaj boppam naan fi gisuleen fii bël bu tàkk morso bu xonq ci tànk su ngeen ko gisee man maay moom moom mooy man kooku séeréer la waaye man tam projet man maay ñoom ñoom ñooy man fa tabarakallah di nuyu ak imam Jabel ah, sama diggante moom moom ñëpp xam nañ ko ñaanal ko yàlla yàlla taxawu ko yàlla jàppale ko ci mission bi mission bi ngeen jëm tam muy aj màkk yàlla na ko yàlla yombal defal leen ci ndam yéen ak professeur Abdoul Aziz Kébé nuyu suma bopp

nga jox ma ay orientation ba léegi ñu ngi koy gis professeur maa ngi lay nuyu di nuyu Hadj Dame Diouf nuyu ko maa ngi koy soo gis waaye chaque jour ñu déggante téléphone ci ay xalaat ci ay orientation moom tam Hadj Bokar si ñu ngi koy nuyu bu baax a baax fa tabarakallahu nuyu suma rak yi ma àndal di Abdoulaye Gaye ak Ndeene ak ak Ibra Lo ñu ngi leen di nuyu ñu ànd ak man thème bi nag dafa nekk thème bu doy waar muy maam Maodo radiyallahu anhu le salaf et le soufi thème bi pour ñu mën ko traiter pour ñu mën traiter thème bi ñu mëna xam Maodo salaf et soufi donc thème bi ñaari baat la ñaari baat la as salaf wa soufi. donc pour ma mën traiter il faut ma def lu wax étude comparative Moy ñaari baat la pour ñu mën a génne salaf ak soufi, il faut ñu def d'abord étude comparative ci loolu nag dinaa def point te waxtaan bi ci lu war a toll ci juróomi point xëy na du fi xaj parce que 20 minutes moom juróomi point xaju ci mais dañ koy junj ko parce que ay borom xam-xam la ñuy waxal waaw point bu nekk ma jéem ko def 5 minutes donc premier premier bi mooy dafa am ay baat parce que l'islam du ko yàlla wàccee benn tur la am mooy al islam ki nga xam ni mooy adepte bi moo dugg ci l'islam kooku li ñu koy woowee mooy al muslim le musulman jullit donc ak foo mënti bokk moo xam tariixa la moo xam secte la moo xam idéologie boo am mais jullit nga mais donc courant yooyu di am le fait que ñu ne soufi le fait que ñu ne salafiste, le fait que ñu ne ahlu sunna wal jamaa le fait que ñu ne kii mortazila la bok, yooyu yep ay courant yu ñëw donc nag li pour ñu mën comprendre l'un mooy as salaf ak l'autre mooy as soufi

foofu la bëgg expliquer ni Cheikh El Hadji Malick radiyallahu mom moy def seen mom moy mom moy la synthèse Mamadou moy ki nga xamni moy jëm ki nga xamni mo moo def synthèse ñaari courant yooyu léegi nag lam tu jàngale lan lañu wër mëna mën a ñu mëna déllu dem ci borom bi subhanahu wa taala ni la bëgg a defee suma waxtaan macha allah leer na nañ jërëjëf mhm. premièrement moy mhm. nashatul firaq islamiyya mhm. imam moy nacha bi nañ la juddoo sect genèse bi secte yi nañ lañ juddoo xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa bi muy dund moom rek mom mo nekkoon al masdarul wahid lit tashri boy jàng sharia imam professeur dañ lay wax ni sharia législation ki nga xamni moko dégager moy le prophète sallallahu alayhi wasallam deug dëgg la mais jamonoom ci dundam mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek mom mo nekkoon ki nga xamni mom moy al masdarul wahid moy amul benn poste bu ñu mën wax ni diw moko yor poste bu mënti am rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo ko doon de moom moo ko doon géré dégg nga benn saxaabi yu rek ci jamono yonent bi sallallahu moom moo amoon post boo xam ne bu xew-xew amee bu événement amee xel yëpp dinañ dem ci moom parce que moom moo ko war a taxawee ci jamono yonent bi kenn rek la woon muy sayyiduna Bilal alayhi salaam moom rek mooy saxaabi yi boo xam ne bu waxtu julli jotee moom mooy nodd moom poste boobu la fait que mu nekkoon Bilal di nodd moom rek moo amoon fonction mom lo yenen bi sallallahu alayhi wa sallam daa wax naan arihna bis salati ya Bilal mom mo dan nodd mais apart Bilal amul won kenn ko xamni amna poste lolou mo waral nak yenen bi sallallahu alayhi wa sallam jamono kana al qadi lil jaysh mo nekkon le chef d'état état major des armées ci armée bu xare amé moy mooy mo nekkon al khadi sallallahu alayhi wa sallam nekkon al khadi kaana sax ak tabib mo nekkoon même le médecin hmm. motax moy wax ni djuma su waxtu julli jotee rek lay tudd djuma mais bu waxtu julli jotul amna lu mu war a tudd hmm. ñun nak ñun djuma dañuy julli tejj ko hmm. parce que lolu du rôle jakka jakka dafa am rôlam ci instant bu nek motax tax Mamadou ci déggam li muy tabax ta bindul tudd tuddewul li mu tabax ay jakka mu tuddé ko ay zawaya ay zawiya parce que zawiya mo ëpp muru na jakka zawiya mo ëpp souplesse jàkka zawiya heure julli jàkka lay tudd heure nelaw mu nekk dortoir heure añ mu nekk restaurant heure jàng mu nekk daara moo tax Maam Maodo li mu lijjanti yëpp mu lijjanti ko ci zawiya yi yonent bi saasam kaana tabib moo nekkoon le médecin kaana al qaadi moo nekkoon le juge kaana al mufti moo nekkoon ki nga xam ni mooy atte masala bu amee ci sharia moom la ñuy la kaana al imam moo daan jiite huwa al marjiu al wahid di tashri

sadma bu njëkk bi al ula foofu la amee yàggul tuuti mu génn àdduna am na sax ñu wax ni avant muy génn àdduna am na beneen crise mais boobu boo demee ci téere chiite yi nga koy gis mooy bi mu tëddee ci néegam Seydina Omar dugg si ak Seydina Abou Bakr ak safurla Seydina Omar ak Seydina Alioune mu ne Alioune alma xalima alma stylo ak alma alxalam wala xirtas mooy stylo ak benn papier ma am lu ma bind ma am lu ma leen bàyyee Sidna Omar mom mo bañ nee na yonent bi instant bi comme dafa feebar ba tollu ci xal bi biñ ko jox mu bind parce que li ñu waroon a jàngal yépp jàngal nañu donc fofu am nañu wax sax ni fofu la crise bi commencé digganteem ak Ali parce que lolu ci terre chute la ñu ëpp li ñu koy gis ñu jàll fofu deux mais benen crise bi gëna mag ci l'islam mooy bi bi ku tedd ki sallallahu alayhi wasallam génne àdduna avant ñu koy inhumer avant ñu koy rob gars yi dañu daje ci saxifatu bani sa ñu ne dañuy jéem a xool kan mooy nekk le successeur du prophète abou Aboubacar ñiy jël Saad ibn Ubaada ni mooy doon waa waa Medina waa Ansaar ne Saad ibn Ubaada moo war a nekk xalifa parce que ñoom waa Ansaar waa Medina ñoo gàttandu jullit yi ak la cay xew Seydina Aliou boobu ñëwul lu tax ñëwul am na ñu wax ni boobu da doon toog ci néegam di xaar parce que mooy le frère du prophète da doon xaar kuy ñëw jaayante ak moom loolu ci ba tey ci téere chute mais comme histoire la dañuy wax waye la ci am am ca ba yàlla dogal abou bakr ñu installer ko mu nekk xalifatu rasul mais crise du na en tout cas parce que jullit commencé nak am ay crise mais ba tay li xew rek mooy julliti la ñuy tudd yi rek bi ñu crise boobu dañ koo gérer ba Aboubacar génn aduna waxna histoire abou bakr ci académie bi ci koor gi nim ko doli bim fi jógee Omar ibn al khattab tok nek amirul muminin ñu ba tey crise bi amna mais ñu ngi koy gérer bi Omar ibnu Xataab génne àdduna ñu assassiné ko ak Abu Lu'lu al Majusi ba tey crise bi am na mais ñu ngi koy gérer taxu ko graaw noonu ba ci commencement xilaafa Seydina Ousmane mais bu ñu demee ba ci fin wu Seydina xilaafa Seydina Ousmane crise bi na gën a gën a jug gën a am am doole ba ñu ba li xew-xew ba ñu assassiné Seydina Ousmane ñu rey ko ci la Muawiya jóge Cham parce que moo nekkoon gouverneur Cham bi mu ñëwee moom mi ngi réclamé parce que mbokk Seydina Ousmane la mi ngi réclamé ni Seydina Ousmane dañ ko rey loolu moo tax ci aljuma ga mu jël yëre Seydina Ousmane bañ ko reyee wékk ko ci mimbar ba ba muy xutba di xutba di wax métti ak ni ñu rey Seydina Ousmane gis nga moment boobu nag fekk na bi mu nekkee gouverneur Cham dooleem yaatu na parce que Omar ibn Khattab daf ko gën a yokkal dooleem bi mu ñëwee doole jooju mu mu mu rëy ci moom bi ñu assassiné imam Ousmane mu ñëw réclamer ni mbokkam la daal di def xutba bu yéeme ci jàkke ji bi mu defee xutba moom Seydina euh, moom moom Muawiya def xutba boobu lee merci def xutba bi di wane ni ñu rayee Seydina Ousmane émotion bi nit ñi am ndax Seydina Ousmane dañ ko rey ak ni ñu ko reyee mu fexe ba ci xutbaam mu def benn émotion émotion ci nit ñi ba nit ñi am ñeewant ci foofu mu réclamer ni Seydina Alioune yow da nga bokk ci ñi assassiné Seydina Ousmane courant nag juddu foofu coow li am digganteem Seydina Ousmane ak Muawiya xare am ba Maarakatu Siffin juddu xare bu metti la ci jullit yi seen biir bi ñu demee ci biir xare bi Seydina Omar Ousmane Seydina Ali dominé ko bi mu demee ba sentir ni moom Muawiya mi ngi nekk ci position faiblesse mu ne léegi ni ñuy def mooy nañu def tahkim nañu xool nu ñu négocier pouvoir bi parce que xam na ni mu ngi ci position faiblesse dafay ñàkk foofu nag la Seydina Ali d'accord ni moom tam dina dindi nangu na taxaw def négociation ak Muawiya ñu xool kan mooy nekk xalifa bi Seydina Alioune d'accord ci loolu rek am benn kuréel mooy partisan imam Alioune am benn kuréel bu nekk ci ñoom ñoom ñu ne lu tax Seydina Alioune di nangu loolu ñu ñoo njëkk a génn foofee génn nag bi loolu amee loolu mooy premier courant bi nga xam ne nee na ñii ñooy njiit ñu am tur hmm. foofu lu njëkk a judd hmm. ñu tudde leen alxawaarij hmm. loolu mooy première tour bi nga xam ne courant am na nag ci biir diine lislaam xawaarij yooyu nag ñoom bi ñu génne mere Seydina Ali parce que ay partisans lañ te d'accord ñu woon ak Muawiya léegi Muawiya mi ngi fi ah, Aliyun ibnu Abi Talib mi ngi fi ak Amr ibnu As ci biir loolu nag bi crise boobu amee nag bi xawaarij yi génnee ñoom nee nañu ñoom ñoo njëkk a gis nga xawaarij yi courant boobu bi mu amee ñoom ñoo njëkk a génne baatu takfir ak baatu irhab mooy terrorisme foofu lañ di ko génne takfiir mooy képp koo xam ne bokkatul ci ñoom rek pour ñoom bokkatuloo ci lislaam loolu mooy waral ñu ne li di am na courant yoo xam ne bu ñu ne yow tas suufi nga rek ñu ne yow yéeféer nga yu baddi'uuna naas wa yuxrijuunahum ani jii foofu la juddoo boobu mooy première ñoom nag xawaarij ñoom fa xaraju an Ali ñu mere imam Ali ñu génn dëkk léegi nag ñoom ñu taxaw nekk seen courant bopp bi ñu paree xamoon lu ñu def dañ doon dem ñoom dañu waxoon ni ku bokkul ci ñoom ci ahlul bidaa nga bokk comme ni xew léegi ñu ne laa xukuma illa la ñu ne atte moom benn atte rek mooy am mooy bu yàlla ci la Seydina Aliyu waxee waxam ju siiw jooju ne kalimatul xaq yu biha al baatil foofu la jóge xawaari ji taxaw daan ni Aliyu ibnu Abi Taalib la ñoom seen bopp ñu ne Muawiya yéeféer la ñu ne Amr ibn al-As ñu ne Abu musal al-Ash'ari yéeféer la parce que ñooñ ñooy ñi nga xam ne ñoo yoroon pouvoir ñu commencé nag su guddi gi jotee amoon na benn montagne boo xamante ni fa lañ doon dem laqatu ju foofu benn montagne ñuy wax xarawraa lañ daan dem laqatu ci guddi gi fa la ñuy gi fa la ñuy nekk su guddee ñu génn ñëw dugg ci biir dëkk bi def seen attentat delluwaat ñu waxaat beneen wax ne man la lam yakun maana foofu wa diddu na ñu ne ku bokkul ci suñu kuréel suñuy noon la donc boobu mooy première kuréel bi nga xam ne am na ba naa Aliou léegi nag ñoom nag ñoom ñoo def benn benn mu amara li arab di wax mu amara mooy complot benn guddi ñu ne comme Aliou moo yor pouvoir bi jullit Muawiya mi ngi réclamé nañ leen rey ñoom ñaar boole nañ sax abu Amr ibn As mais ci guddi gi Muawiya jam nañ ko mais dafa rëcc deewul Amr ibn As dafa am ngànt keroog ñëwul Seydina Alioune moom la ñu jekk ci mu jàkk ji muy dem ñu assassiné ko léegi Alioune génn na àdduna amul jamaa am na parce que Hassan ibn Alioune négocié na ak Muawiya du ma dugg ci détail boobu léegi nag Muawiya jël na jël na pouvoir bi léegi nag bi Muawiya jëlee pouvoir bi nag foofu nag la amaat beneen mbir judduwaat mooy lu ñuy wax ashia mooy les chiites mooy les partisans de Imam Ali yaani shaayawu Aliyan yaani nasaru ñoom ñoo doon dimbali Alioune ñoom ñoo juddu chiite yi donc léegi nga gis ni islaam am na trois courants yu am benn bi mooy xawaarij mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo génn ci Alioune ñaareelu kuréel bi moom mooy les chiites ñetteel bi nag moom mooy jullit yi mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak pouvoir bi mooy jullit ñi ñuy tuddee jullit donc foofu la pour foofu la courant yi am bi ñu demee nag ba Muawiya génn àdduna ñu continuer di dem ba xalifa Mamoun ñëw Mu'tazila juddu dama dem nag gis nga beneen courant ñëwaat na mu judduwaat ci diggante yi mooy Mu'tazila judd foofu nag la ñu dem ba nga xam ne am na ay nit diine l'islam yu dem ba ci deuxième siècle après la disparition après hijriya ñaareelu xarnu bi ginnaaw bi yonent bi génnee àdduna fekk courant yi di màgg foofu la am benn kuréel bu génn nag xool ni diine l'islam nag ñu ngi ko ñu ngi ciy commencé dugal lu ci bokkul diine gi mi ngi rax nit ñi léegi diine gi courant yi seen bopp lañ koy defal mais pas pour diine parce que courant bu ci nekk dangay wax ni ku àndut ak man yéeféer la su booba li muy jur mooy ay noon ñooy nekk jullit yi moo tax nag foofu la amee ay kuréel ci la as sa ñuy tuddee as salaf génn ñoom salaf yi xam luñu lan moo nekkoon seen bi parce que dafa am ñaari parti salaf dafa am bu génn ci moment boobu am bu génn ci douzième siècle mais ñoom dañu waxoon ni ñun dañuy beru waaye dañuy bokk ci ñi nga xam ne ñooy ñooy ut pouvoir bi waye ñun duñ and ak ñi indi seen diiné bop defaraat diiné dañu bëgg rëccël diiné yi mais ñom nee duñu bayé pouvoir bi ak wa pouvoir am ñu génn nak né ñom dañuy génn ci dëkk bi dem ci montagne pour rawali seen diiné ci montagne yi lañuy nek duñu lek lu am ruux duñu lek ndawal duñu ñu sol yëre yu rafet duñu and ak seen soxna ñooñu ñu tuddee as soufi as euh, ñooñu la ñu as soufi al mutasawwifun donc ñaari courant yi juddul léegi nak def naa léegi déjà pour teunk rek li ci bind bay donc waxna premier point bi moy courant yi fa lañ commencé deuxième point ci plan bi ma def nag léegi définition concept lan moy salaf dama koy def d'abord définition yi xëj na bu ñu noddee des na cinq mille bu dee baatu salaf lugatan moy étymologiquement baatu salaf mi ngi jógee mamada wa xaddam salaf moy lo xamni wessuna moy na mooy lu ñu jiitu mooy li fi nekkoon ci lu baax لول موي سلف بنغي موي موم لا يالا واخ القران فلما اسفونا انتخمنا منهم فاغرهناهم اجمعين فجعلناهم سلفا سلفا غيس نغ بعد القران اني نكو فجعلناهم سلفا تري بيان متقدمين فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين في سوره الزخرف دونك لول موم موي سلف اي جعلناهم سلفا

muy la définition mooy nachatul firaxil islamiya courant yooyu kañ lañ judd léegi nag as salaf wax naa tamit définition bi étymologiquement baat bi mooy lu jiitu alquran wax na baat bi et tout mais bu ñu jëlee baatu salaf ci istilaaxan mooy ci tëralinu boroom xam-xam lan mooy euh, as salaf parce que définition boobu professeur suñ ko waxee dinañ xam ni des fois am na ñoo xamante ni suñ defee définition wu lan mooy as-salaf mbokk yi dinañ mën comprendre ne actuellement am na courant bu koy réclamer léegi dañuy def dañuy comparer Maodo soo comparer di nga gis ni ñii est-ce que ay salaf lañ wala lu ñuy wooyee al mutamaslif Mor Asta dafa am ñu ñuy wooyee as salaf mais am na koo xam ne mi ngi koy réclamer bokk ci courant bi di sol ay yëreetu mais du salaf mais mutamaslif la.

am na ñoo xam ne salaf moom ci saxaaba yi rek lañ ko ñoom ñoom ñooy am na ñoo xam ne dañ ne as saxaabatu wa taabiin am na ñoo xam ne ne salaf yi mooy saxaaba yi ak deuxième génération bi topp ci ñoom ñu tudd leen taabiin am na ñu wax ni ñooñ ñooy salaf am na ñu ne tamit troisième gisin bi am na ñoo xam ne ñeneen salaf mooy saxaaba yi ak deuxième génération bi mooy taabiin ak troisième génération bi nga xam ni ñooy wa taabiihim ñi nga xam ne ñoo topp ci saxaaba yi mooy troisième génération bi ñëw ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam voilà de ses prédécesseurs n'est-ce pas ko waxee voilà ñooñu nag mais nekkul ay kuréel mooy nekkul woon nit yi nga xam ne ñoo nekkoon ak yonent bi rek parce que nekk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxul nga bokk ci as-salaf waaye dañuy wax ni minal aimma ñi nga xam ne ay imaam la ñu woon moo tax déglu leen bu baax ñi ñuy wax ni ñi ay salaf lañ yéen di ngeen mën a jugé ba xam Cheikh Al Hadj Malick ci la bokk wala bokkuñu parce que salaf limité wuñ ko rek ci dend ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam dinaa si ñëw léegi incha allah. aïma yi ñi nga xam ne ay imam la ñu woon jiite woon kuréelu jullit yi même bu ñu ñëwee ci troisième génération après yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci as salaf la ñu dañoo as-salafu saalix mooy li fi yonent bi bàyyi woon enseignement boobu ni mu ko tege woon ni mu ko defee woon loolee dara soppeewu ko ñi ko doxal ñooñu ñooy as-salaf am na wax ni aïmma al a'lam al mashhud al a'lam al aïmmatul a'lam min al aïmmatil a'lam al mashhudu lahum bil imama wal fadli ak ñi nga xam ne ay borom ngëneel la ñu woon wattibaa'i sunna ak ñi nga xam ñoo tegoon seen tànk ci sunna sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne tamit wastinaabul bid'a ñi nga xam lépp lo xamni bid'a la won ñom dañ ko doon moytandiku ci bobu lay jamono ñoñu tamit ñom lañ doon wowe as salaf loolu mo waral boo demee ci al-qur'an yàlla mi ngi cité ñoñ sen tour yàlla mi ngi tuddu sen tour ci al-qur'an yàlla ni wa may yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu lahumul huda wa yattabi gay min baadi ma tabayyana lahul huda wa yattabi gayra sabilil muminin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa saat masira sadaqallaahu azim alquran moom moo jàngale loolu alquran li mu jàngale ci aaya boobu bokk yi mooy assalaf mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di pratiquer li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale donc kon ce qui veut dire aaya bi li muy jàngale mooy ku wuute ak li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ak loo mënti tudd ak noo mënti wootee même bo tuddé sa bop ñu la koy rek nga diko réclamer bokko ci kuréel boobu wa may yushaqiqi rasul min baadi ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabili mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa saat masira lolu moy moy première aya bi nga xamanteni mom mo déterminer lolu ñu delu wat ci benen aya mais dama koy tepp indi hadith bu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ni khayrul khuruni kharni summal allazina yalunhum summal allazina yalunhum lan lu bëgg jàngale foofu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafay wax ni li mu bëgg a jàngale mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ne ñi gën ci nit ñi xayrun naas am na ñu wax sax ci am na beneen riwaaya bu ñëw ni xayrun naas ñi gën ci nit ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ne xar nii mooy sama siècle mooy ñi dund ak man summa lazina yaluunahum top génération bi ñëwaat ci ginnaaw mooy tabiin summa lazina yaluunahum donc le fait que génération bu mujjee ñëw rek yow yaa gën a éloigné ci ngëneel bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale borom xam-xam yi nag nee nañu éloignement bobu ne tahdidu zamani bobu am taxul nit ki ñu mën ko dindi ci salaf deng nga charte bi moy charte bi tax nit ñu boole ko ci salaf moy muwafaqatul kitab wa sunna moy li alquran jàngale ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kooku moom salaf deng nga fa kullu man waafa wa fa kullu man wafaqa alkitab wa sunna kep ko xamne ne na li alquran jàngale ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kooku yow an bokk nga ci ñi nga xamni ci salaf yi nga bokk

mais boo dee xool ci ci li ma jot a tënk ci wàllu saraf ñii mooy ñan nga dellu ci enseignement wu Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu di nga xam ne Maam Maodo ci kuréel boobu la bokk. parce que wax nañu ni tahdidu zaman yi limitation wala le fait que temps bi lu mu gudd gudd gudd teewul nit ki duñ ko génnee ci rang wu saxaaba yi xam nga loolu moo tax Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu anhu su waxee ne ci saxaaba yu la bokk mais wax ji des fois ñi ñi contre tarixa yi ak tasawuf mën nañ koo jël rëyal ko ne saxaaba mooy ku gis ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais sama murshid sëriñ Abdoul Aziz Al Amin daf ñu jàngal ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam nañu ni dafa feeñu Mawlana Cheikh ñun loolu werante wuñ ko feeñu na ci jëmm yaxazatan laa manaaman daf ko feeñu mu gis ko te nelawul te ñu ne saxaabi yi mooy koo dund nga ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon est ce que Mawlana Cheikh bu dee ci loolu rek mën nga koo génne ci cadre saxaaba parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais bu la feeñoo c'est parce que deewul mu feeñu ko yaxasatan mu gis ko nii mu ne mu wax ko li mu koy wax pour jox ko tariixa bi kon kooku gisee na ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba pare gëm na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba pare bi muy génn àdduna génn na àdduna ci ngëm yàlla loolu mooy saxaab yi moo tax moo Mawlana Cheikh radiallahu anhu même bu fekkente ni dafa réclamé boppam ci saxaaba yi mën nañ ko sax bañ yóbbu ci dimension boobu mais le fait que ñu ne bokk nga ci as salaf moy ñi nga xamanteni enseignement wu yonent bi saasam gennu ci dara da nga tënku ci alxuraan ak sunna mais su boba ci kurel bobu nga bok te Seydina Cheikh radiyallahu anhu biñ ko laaje ne ko ndax nit ñi dañ la waxal lu lo deful lo waxul ndax dañ la susal mune han kay ginnaw ba sama mam rasulullah sallallahu alayhi wasallam lañuy waxal han kon kay man dinañ ma sosal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaata ahadith mawdua ñu am hadith yu bari di nga gis téré hadith bo xamanteni ni man toujours damay wax ni mokkal xadis ak ilmul xadis bokkul da ngay gis téere boo xam ne gis ku naan la xaala rasulullah xaala rasulullah da fekk la mu wax du waxu yonent bi xadis mawdu la donc da ngay jàng nga mën a xam ilmul jarx wa taadil nga jàng ko mustalax mustalax ilmul mustalax nga jàng ko mën a mën a mën a mën a discerner xadis bi ba xam wér na wala xadis bi wérul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ginnaaw ba susal nañ ko Mawlana Cheikh radiallahu anhu nee na man aussi tamit mën nañ ma susal mais amul problème yomb na xam suñ leen waxee dara ne man maa ko wax jël leen ko ngeen teg ko ci balance su ak sunna su dëppoowee alxuraan ak sunna man maa ko wax su wuutee ak alxuraan ak sunna waxuma ko kon kooku dèjà xam nañ ñun léegi classé nañ ko ñu dellu si ci borom parasol bi Cheikh Alhaji malik radiallahu anhu moom dafa jàngale ne walay sa nafoon ala xubbin bila wa taabi an jeex na wa taabi an sunnatal muxtaari taxtanimi moo tax moom léppam alxuraan ak sunna la moo tax góor gi benn naaru mauritanien bi mu jógee Mauritanie ñëw ñëw wàcc Sénégal parce que Mauritanie riiru Cheikh Alhaaji Malick dafa bëri mu ñëw ci podoor ci Alhaaji Baba Jong di mu xaddamu Cheikh Alhaaji Malick ñëw ci maam Baba Jong ne ko damay dégg Maodo rek riiram bëri na Mauritanie nit ñaa koy tudd mais dama bëgg comme man boroom xam-xam laa mais riiram ni mu amee doole dama bëgg a xam Maodo moomu mooy kan yow ginnaaw bi bi ma ñëwee Sénégal yow lañ ma tegtal ñu ne ma yow moo la defar dama bëgg nga wax ñu kan mooy Cheikh Al Hadj moom maam Baba Jong ne ko ma nekk fii di la waxal kan mooy Cheikh Al loolu duma ko def dama lay bàyyi nga dem ba Tiwaawan fa mu nekk nga jonjoog moom soo demee di nga xam kan mooy Cheikh Al Hadj bi mu ñëwee Tiwaawan mu nekk ak Cheikh Al diir ba mu fiy nekkal bés mu ñëw naar bi ñëw ci maam Maodo Mauritanien la borom xam-xam la mu ñëw ci maam Maodo radiyallahu anhu ne ko dama bëgg a dellu maam Maodo ko yeewi ko li ci xew bëri na mais bi mu dellu siwaatee Podor mam Baba Jong bim ko laajee ne ko legui dama lay laaj kan moy Maodo parce que bu njëkk bi yow bi nga fi jëkke ñëw ya ma doon laaj kuy Maodo mais actuellement dama lay laaj kan moy Maodo nar bi daf ko wax ne ko Maodo dal bima démé demee wajadtuhu qad al hal fekk na Maodo hal bi aduna ak lépp Maodo dako note ba tok ci kawam waye nak keneen ku dul moom xaal bi note nako mais Cheikh al Hadji Malick bima ko gëstoo ba xol ko fekk na mom mu note hal bi waaw kon Maodo gis nañ ni ci walu salaf def nañ ko bu ñu ñëwee définition tasawuf baatu tasawuf nag euh, ci wàllu étymologique loolu kenn du ci rey borom xam-xam yi moom nee nañu boo fi nekkee naan da ngay da ngay définir tasawuf ci wàllu langue kooku junni junni junni tasawuf junni définition am na mais bu ñu ñëwee ci istilaaxan tasawuf mooy lan boroom xam-xam yi dafa dama ci jël ñett rek ñoo xam ne ñoom ñoo définir lan mooy tasawuf parce que définition tasawuf xam nga islam définition islam ñëpp xam nañ benn la yonent bi moo ko jàngale mais lan moo war a tasawuf ci boppam bëri ay définition d' abord dañu lay wax ni tasawuf bu bala ñu lay wax mooy lan dañu lay wax ni la mooy troisième parti ci diine l'islam xam nga diine l'islam ñetti was la ba dee ci mag ñi bu ñu la koy jàngal ñetti was la mooy ñetti tànk la taxaw diine diine diine ñetti tànk la taxawee yéen dañuy dégg sama wax ji ñaata tànk laa wax ñett bu njëkk bi mooy islam ñaareel bi mooy iman ñetteel bi mooy ihsaan loolu xadiisu Seydina Jibril bu siiw boobu moo ko jàngale Seydina Jibril alayhi salaam Seydina Omar moo nettali xadiis bi ci ba demee ci euh, imaamul Buxaari radiallahu anhu nee na yonent bi salaa salaam dafa toog di jàngale comme nii ñu toogee di benn waay dugg si sol lu weex ñu xool ko mais gisuñu kii mësuñu koo gis ci dëkk bi xamuñu ko te gisuñu ci moom jeexitalu voyageur xam nga voyage yi léegi ak voyage bu njëkkoon bokkul léegi da ngay jóge Thiès léegi ñëw te doo ñaq mais bu njëkkoon ak moyen de transport yi ak dëkk yi ni ñu soree boo voyagé boo egsee rek dañu xam ne kii dafa tukki ñu ne waa ji xool nañ ko mais gisuñu ci moom jeexitalu voyage xamuñu kan la nee na waa ji ñëw jéggi nit ñi ba egsi ci yonent bi sa alayhi wasallam daal di sës ñaari bëtu oomam ci ñaari bëtu oomu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëpp toog di ko xool mun ne yonent bi sallallahu dama lay jàng dama lay laaj lan mooy islam yonent bi sallallahu alayhi ko islaam mooy nga seede ni amul benn buur bu ñu war a jaamu ko dul yàlla nga gëm ni yonent bi sallallahu la wa yàllaa ko yónni muy première ba ñaareel bi nga taxawal julli ñetteel bi nga joxe azaka ñeenteel bi nga woor weeru ko juróomeel bi nga dem mag moom mu ne yonent bi dëgg la dëgg la li nga tontu dëgg la Seydina Omar ne ñun ñu jaaxle naka nga mën a poser question ba pare ñu tontu na nga ni nga ni réponse bi nii la xam nga question bi ngay poser xamuloo ko des fois mën nga poser question ñu répondre la noo xam ne bi jubul nga jàpp ni jub na parce que xamuloo mais moom bi mu ko laajee yonent bi tontu ko dañu ko nii la réponse bi ni nga ko waxee noonu la Omar nañ ñu jaaxle ci loolu mu dóoraat ko beneen question ne ko lan mooy iman ngëm yàlla mooy lan ngëm yonent saa ne ko ngëm yàlla mooy da ngay gëm ni yàlla am na gëm ni malaayika yi am nañ gëm ni les livre révélés mooy alkutubu samawiya nga gëm téere yooyu gëm yonent yi yëpp amul bii bàyyi bii ñëpp ngay gëm gëm yowmal xiyaam gëm ndogal bu neexee nga gëm ko bu naqaree nga gëm ko nee na mu ne yonent bi noonu la mu ne ko troisième question moy lan moy ihsan lan moy rafetal lan moy ndiek yonent bi salaa sallam ne ko al ihsan an ta'budu allaha ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak moy islam moy nga jamu yàlla ba melni yang koy gis car soko gisul mom yàlla mi lay gis xam ko mu mu ne waa ji ne Muhammad très bien non la mu juk mom waji ji daal di jug dem bi mu jógee dem Seydina Omar ne ñu daal di wedam li mag ñu naan wedam aleykum salaam bismillah Seydina Omar radiallahu anhu ne ñu ñun waa ji laaj na question yi tontu te kenn xamul kan la mu jug dem nee na bi mu jugee dem nee na ñu ñëpp ñu toog kenn waxul ñépp ne pat fa la bis naa maliya ñu toog ne pat mu ne bi waa ji demee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog ne tekk ñun tam ñu toog ne teg yonent bi ne est-ce que xam ngeen kii ñëwoon di leen laaj question yi kan la saxaaba yi ne ko ah kii de yàlla ak yonent bi rek ñoo moo ko xam mais ñun xamuñu ko yàlla ak yonent bi rek ko ko xam mu ne leen kii naa Jibril alayhi salaam la dafa ñëwoon pour jàngal leen seen diine comme Jibril dafa ñëw pour jàngal leen seen diine te ñetti question la posé moo tax ñu ne diine ñetti tànk yooyu la léegi premier tànk yi mooy al islaam islam nag xam-xamu islam pour sa islaam mën a mat xam-xam bi nga mën a jàngal pour sa l'islam mat mooy juróom yi ma wax ilmu bi ngay jàng mooy ilmul fiqh parce que xam-xamu ku ko jàngul sa mën a sa ja say jaamu yàlla parce que islam mooy jaamu yàlla donc ilmul fiqh soo ko jàngul sa l'islam matul deuxième deuxième point bi ci lislaam mooy al iman iman sa ngëm yàlla pour mu gën pour mu mat xam-xam bi ngay jàng mooy ilmu tawxid mooy théologie moom ngay jàng boo jàngul tawxid shirk day bari say mais do jamu yalla do nek mu'min troisième point bi moy al ihsan moy nga jamu yalla adorer je anta abudallah ka annaka tara mu ne c'est adorer je comme si tu le voyais fa in lam takun tara car si tu ne le vois pas fa innahu yarak lui te voit ginnaw ba jamu yalla da ngay dem ba tollu ci jamu yalla ba xamni bo xamni day melni yang koy gis lolou moy maqama mushahada moy nga dem ba nga xamni yak sa borom yéen a koy da ngeen di mel ni da maanaam da nga koy gis wala nga boo mënul toll ci maqaama mushahada nga toll ci maqaama boo xam ni moom xam nga ni gisoo ko mais moom mi ngi lay gis de toute façon bu boobaa ihsaan sa jaamu yàlla day am njekk day am rafetal léegi nag ihsaan boobu tamit xam-xam bi nga xam ne mooy tax nga maîtriser ko du du xam-xamu fiqh du xam-xamu tawxid mais ilmu tasawuf moom mooy tax nga mën a xam al ihsaan donc ihsaan troisième point diine mooy ihsaan ku jàng ilmu tasawuf mënuloo jàng mënuloo am ihsaan leer na wala leerul léegi nag tasawuf boobu nag def mag ñi bi ñu koy définir xam nga bu ñu lay définir ay ilmul fiq bi tax nga mën a xam islam fiq mooy lan booy jàng usul jurisprudence islamique suñu lay defal la définition fiq mooy lan dañ naan la al fiq huwa maarifatu masa majmuatu l ahkam lcharia al amaliya al muktasab min adillatiha al tafsilia loolu mooy définition xam-xamu fiq léegi nag bu ñu leen laaj définition wu xam-xamu tasawuf bés nga borom xam-xam yëpp ñoom ñoo bokk d'accord ni fiq noonu lañ koy définir mais lan moo war a tasawuf ci téere yi mag ñi seen définition ci tasawuf wuute kii ne tasawuf lii la kii ne lee la kii ne lee la ñu ne parce que bu dee fiq lu ñuy jàng la soo bëggee xam-xamu fiq da ngay am na téere yoo xam ne ñu ngi fi manzuura mashruha ñu ngi fi ñu nga leen di gis boo dee bëggee jàng tawxid téere tawxid yaa ngi fi mais boo bëggee jàng ihsaan ihsaan du téere booy jàng ba am ko mais ixsaan pour nga mën koo maîtriser moom mooy nga ànd ak cheikhu tarbiya léegi nag ixsaan boobu nag cheikhu tarbiya boobu sëriñ boobu di la tarbiya le fait façon bi mu lay ñamal xam nga tey jii bu ñu tegoon fii gerte caaf su ma ko yéeyee professeur yéey ko sëñ Ahmed yéey ko mais man suñu ma laajee gerte gi lu loo ci yëg yëg-yëg bi may wax ni ma koy définir du bokk ak bi professeur di wax du bokk ak bi sëñ Ahmed di wax parce lu tax kenn ku ci nekk ni nga ko yéegee noonu nga koy définir tasawuf tamit yëg-yëg la du lu jàng di ko mokkal mais lu yëg la le fait que lu ñuy yëg la loolu moom mooy waral kenn ku ci nekk yëgin wi nga koy yëg noo nee nga koy traduire loolu moo waral borom xam-xam yi Muhyiddin Ibnu Arabi ne ak tasawufu huwa al xulux faman zada zaada alayka fi tasawuf za fi xulux zaada alayka fi tasawuf nee tasawuf soufisme du lenn lu dul jikko la rek jikko nee na ku jikko moo la ëppale tasawuf am na ñu ko firee loolu am ñu ne tasawuf Euh, beneen définition ñu tasawuf mooy nga fexe ba ràngoo mbooleem jikko yu rafet ak taxal ak taxalli bu njëkk yi mooy nga summeeku soufisme mooy nga summik sa bopp ni ngay summee sa yére noonu ngay summeekoo ci bépp rasail ci ay bassesse jikko yu ñaaw ba pare nga def taxal lii nga sañse ci alfadaa ili ay ngëneel képp koo xam ni moo la gën a mën a sori jikko bu ñaaw gën la ràngoo jikko bu rafet kookee moo la ëppale tasawuf kon tasawuf nga gis ni bëri na ay définition léegi bu ñu ñëwee Cheikh El Hadji Malick nag radiyallahu anhu ni mu jàngale tasawuf ak ni mu ko jëfee donc tasawuf ni ko Mamadou jàngalee radiyallahu anhu gis nga maa ngi léegi def naa définition ñaar yëpp léegi léegi nag fi may ñëw ci beneen point bi ci deux minutes mooy ñoom ñaar fan la ñu wuutee salaf ak tasawuf ci commencement bi te waxoon naa ko mooy gis nga ñii dañu wax ni dañuy rawale seen diine mais du tey dañuy mooy ci état bi dañuy bokk ci ni ñuy doxee ci xokuma bi loolu loolu mooy seen gis-gis mais bu dee suufi bi moom bu njëkkoon ci commencement moom dafay def artisal mooy solitude day beru dem ci montagne bi du lekk du naan lu neex du takk soxna day dafay def ay xëlwa waaye gis nga bi ma tarixatu tijaaniya ñëwee naa Cheikh radiyallahu xam nga tarbiya boobu amoon moom la ñu tuddee tarbiyatul istilaahiya mooy tarbiya boo xam ni ay da ngay yëy ay xob di lekk ay mburu yu wow di sol ay saako di dëkk ci montagne yi loolu mooy tarbiya bu ñu la doon defal pour nga egg ci yàlla mais bi tarixatu tijaaniya ñëwee nekk benn courant wala benn parti bu bees ci tarixa bi dafa dindi loolu min gayri xalwatin wala ihtizaal nga xam ni da ngay léegi gis nga kon synthèse bi ñoom ñaar fi ñu fi ñu wuutee mooy kii dafay rawale diineem mais day bokk ci doxalin bi parce que fu nee nañ beru bi beru bi ngay ber le fait que ngay beru beru boobu ihtizaal boobu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa def ñaari tarixatu tijaan dafa def synthèse dund yonent bi sallallahu parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam dund na tasawufu beru moom kes mais dund naa ne tasawufu boole ko ci mbir mi tasawufu beru bi mooy bi mu nekkee ci aaru Hira ci montagne bi di beru foofu avant Jibril di ñëw loolu parce que beru boobu mooy tax nga mën a defar sa bopp man tasawuf lu tax ñu lay beruloo mooy nit ki pour nga mën a defar pénc mi faaw nga defar sa bopp ba pare loolu taxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu génn ko ci aaru Hira xam nga léeg-léeg nga dégg kuy firi sax ne yonent bi daf doon jaamu yàlla mais yonent bi boobu ci wàllu bachariya rek bu ñu dugg ci baati mais yonent bi boobu xamul ku yàlla maanaam boobu mission diine wàccagul te taabul diine wàccagul mais boobu bi mu dem ci montagne bi daf doon defari ji jikko parce que li mu fekk ci biir Medinatu mu karam ci jikko yu bon il fa que mu génn defar defar boppam xoolaat boppam soog a nag dellu siwaat pour defar penc bi loolu mooy xaslu loolu mooy ixtisaal bi xam ne moo am ci tasaw boo defaree sa bopp ba pare dangay ñëwaat duggaat ci penc mi defar penc mi moo tax nag fi ñu bokk ñoom ñaar tasawuf Cheikh Al bi mu ñëwee def synthèse bi moo tax Mame Maodo radiyallahu anhu mission bi mu réussir nekk as salaf wa suufi dafa dund alxuraan ak sunna ni ko ni ko salaf yi jànge ak su ak su ak suufi yi ba pare fexe ba beru moom Mame Maodo def na beru bi defar boppam ba pare soog a ñëw ci penc mi loolu moo tax ci jamonoom Cheikh Al Hadj Malick moo nekkoon la seul boo xam ni dafa amoon ak pouvoir bi fi nekkoon xam nga parce que li tax mu réussir Sénégal tasawuf bi am doole c'est parce que Cheikh El Hadj Malick su bokkoon ci ñu beru toog foofu amaana pouvoir bi day gën am doole ci pénc mi mais Mamadou deful loolu dafa dem jël li muy jël ba paré ci défar bopam mais dellu siwaat ci biir pénc ni taxaw ci biir pénc ni défarat bopam défar boobu nga xamni défar nako bopam nak boppam moy waral su ñëwee mëna défar nit yi loolu moom moy mission wu Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu léegi nag tasawuf bi nga xam ni Cheikh Alhaaji Malick radiyallahu anhu jàngale na ko nga xam ni bi mu ñëwee dafa def ñaar yooyu dafa jël li salaf yi doon jàngale jël li suuf doon jàngale nga xam ni définition yi ñoo wuté mais as salaf ak as suuf définition yi ñoo wuté mais benn bi la objectif bi benn la parce que bima défé définition moy texte teg tànk ci alquran ak sunna sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam noni la ko Cheikh Alhaaji Malick défé léegi tasawuf bobu nga xam ne nag def synthèse Cheikh Alhaaji Malick doon jàngale ci salaf ak soufi soufi bobu moy tan xam nga xam nga objectif bi yëpp commencement bi bi ma waxee objectif bi yëpp li waral courant yi am yëpp mooy jaxasoo bu amoon ñu bëgg indiwaat ordre léegi nag penc mi pour ñu bëgg indiwaat ordre xoolal Cheikh Al Hadj Malick yi mu teg ñaata minute moom dese waaw ma daaneel foofu kon waaw kon Cheikh Al Hadj Malick gis nga nii la def bi mu ñëwee xam nga nu def dabay bàyyi <laughs> voilà bon bàyyi ma ko bàyyi ma euh, deux minutes ma daaneel trois waaw ma tënk ko rek voilà léegi mbokk yi fi may tënkee ci lu gàtt mooy Cheikh Hadji pour mu réussir li nga xam ni moom la courant yi doon doon jooy wax naa courant yi naka lañ juddoo wax naa lan moo leen metti ba ñu judd wax nañ dañoo bëggoon a indiwaat ordre ci société bi dañoo bëgg a defaraat ordre ci société xam lan moo koy defar jikko moo tax Cheikh El Hadj bi mu la téyee daf lay daf lay rey mam moor daf lay rey ñetti rey nga dee mu dekkalaat la indi la ci penc bi nga dund dee nga ci yi dundaat fii penc boo nekk day am développement ñetti rey yi dee yu njëkk bu njëkk bi mooy al mawtul abiyat da ngay dee dee bu weex parce que mam a tarbiya déglu leen bu baax dinañ ko laajaat Cheikh El Hadj daf lay tarbiya tarbiya boo xam da lay rey al mawtul abiyat nga dee dé bu weex dee bu weex bi mooy lan mooy yaa ngi dund mais doo lekk lu bon doo doo naan lu xaram mooy di nga fexe ba lépp loo jëfandikoo ci lekk ak ci naan mam Maodo dina la ko seggal ba lu mu neex neex dafay dagal ba mooy al mawtul abiyat ñaareel bi ñaareelu dee bi mooy al mawtul ahmar da ngay dé dee bu xonq dee bu xonq mooy lan mooy day fexe ba mu xaalafatu nafsi fii hawaaha mooy day fexe ba mam moo doo dee bu xonq bi mu lay rey nga dee dee bu xonq mooy day fexe ba sa bakkan plaisir bi mu am mu rey ko ba mu ba sa ba sa bakkan wuute ak sa sa bakkan day jóge ci an nafsul ammaara bi suu dem ci an nafsul kaamila donc pour mu nafs bi jógee min bi suu ila darajatil kaamila il faut nga dee dee bu xonq mam moo doo boobu lay rey mm-hmm. soo dee ci dee bu xonq ba pare mu reyal la ci li ñuy wax al mawtul aswat dee bu ñuul da ngay deewaat dee bu ñuul dee bu ñuul mooy lan mooy ixtimaalu azal xalq dafay fexe ba Mame Maodo foo mënti nekk dina la tarbiya yar la ba nga xam ni boo ñëwee ci penc mi nit yi lor bi ñu lay lor ak kaddu yu ñaaw yu ñu lay teg da nga koy mën a yanu parce que soo ko mënul yanu lu ñu la def nga fayu su boobaa développement du am bi ci penc Mame Maodo la ci loolu ñeenteelu dee bi mujj bi mooy al mawtul ahdar moom mooy dee bu verte dee bu verte bobu moy day fexé day fexé ray day ba apparence yow lu bax li ngay manam sa du du am mais essence bi ngay dégager lu bax li lolou lay génné day apparence di dundal essence lolou mo moy mawt ahyat euh mawtul ahdar verte bi xam nga su lan lay fa ilayka insan جوهر الانسان بوب موي انسانيه الانسان كوكو مو من اندي ديفلوبمون تي كاو سوف موتاخ يالا نيو ولا عصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته آه